kenn du <laughs> ma dañuy dalal mu ne yi la dalal xooxaan ndong waaw gis waaw eh, ay man damaa bëri ay tur ci kër gi sax waaw Bintu Fall neen ndax baax na ana Bintu Fall bi mu may dégg moom man daf may dégg waaw ah, noo def ça tranquille naka sa alhamdulilah ça naan nga dose bu naanaguma dara ah, lu tax <laughs> daanaka ma dara daw rek bañ a tardé. ma toogoon foofu ah, di naan di naan dara damay tardé de. Euh, leçon bi moom mat na ndax sa simili moom kenn du ko laal. leçon su <laughs> simili moom bu Ibrahima aan kenn du ko laal day mat sëkk parce que lu am solo. Euh, Lagaria moom la nar waxtaanee ni ki tey ji ñu bàyyi la rek ñu sóobu ci waxtaan bi. Mm-hmm. kilifa gi mm-hmm. xanaa ngeen may ma rek ma dans la foulée de la dame. Mm-hmm. ma nuyu suñu benn dëkkandoo boo xam ne moom tamit ci événement yi euh, yàlla daf ko tegoon euh, nattu yoon tegoon ko loxo mi ngi mi ngi mi ngi actuellement nii ci prison yi euh, mi ngi mi ngi ñuy seetaan nag. day seetaan suñu émission yi. à chaque fois yaayam bu fa demee di ko seeti daf ñuy jottali ay nuyoom ak nee na mi ngi seetaan. te mi ngi kontaan ci liggéey bi am solo bi Walfadjri di def mi ngi tugg mi ngi tudd Abdoul Aziz Diatta. Mm, Abdoul Aziz Diatta waaw. ñoo dëkkoon vraiment dëkk benn père de famille modèle. Mm. boo xam ne man ñett rek laa ko xamee. Mm. liggéeyam jàkka ji parce que suñu bilaal yi la bokk. ak këram. donc man loolu vraiment loolu laa ko xamee woon. Mm-hmm. donc nit ki aussi li nga xam ci moom rek moom ngay wax quoi. Mm-hmm. donc euh, ñu koy nuyu di ko ziar di ñaan yàlla. te teggil ko nattu bi ba mu dellu ci këram dellu ci liggéeyam dellu ci jàkk ji parce que. sentir nañu vide ci euh, jàkk ji. bilaay bokkoon ci am nga vraiment suñu bilaal yi ko waaw. Mm. Mm-hmm. di ko di ko nuyu di nuyu yaayam mère Badiane. ñu ngi leen bu jàmbar di nuyu ay ñaari soxnaam Awa Ña ak Awa Ndiaye. mu ngi noonu ñu koy ziar bu baax a baax moom itamit di ko ñaanal boroom bi teggil ko natt bi mu delluwaat ci njabootam. Mhm. incha allah alors euh, euh, comme ni ko la star du jeudi di defee rek chaque jeudi bu ñëwee dañuy waxtaanee ay points yu am solo aujourd'hui nag dañuy essayer d'être un peu pragmatique euh, répondre directement à certaines question yi nga xamante ni ñenn ci sénégalais yi ñu ngi koy posé wu Fabi parce que l'on sait que jamono ji coowal amnistie nekk na bu baax a baax. ndax euh, actualité bi on en avait parlé mais dañ koy andiwaat parce que euh, njiital réew mi am na ay kàddu yu nga xamante ni biral na ko jëmal ci loolu buñ ci pare it euh, daal di cofaat ci mbirum dat datum élection bi nga xamante ni yi tamit ça fait l'actualité donc lan moo ci war a nekk taxawaayu conseil constitutionnel entre autres points mais d'abord dañuy dikkaat on l'avait défini la dernière fois mais rappel comme ni ko Pierre di waxee le rappel profite aux croyants. Mm-hmm. <laughs> je pense répétition et pédagogie. donc euh, mu définir ñu rek d' abord lan mooy loi d' amnistie. ba moom man yéen laa waroon bàyyi sax Fabintu. ah xooxaan donc wax na ko mm-hmm. wax na ko sànq. ma bàyyi ma bàyyi leen ah. parce que comme waxoon nañ ko waxaat ko. waaw euh, élèves yi récité. moo tax ñu xool ndax euh, ndax <laughs> ndax ndax cours bi assimilé ngeen ko. waaye maître bi daa meilleur yow yow eh? xar rek ñu la. non doon déglu en fait euh, sérieusement donc loi d'amnistie moom mhm. benn texte la boo xam ne ci assemblée nationale lay jógee euh, amnistie loi la euh, donc kii di loi rek di assemblée nationale député rek moo am sañ-sañ voté loi loi d'amnistie maintenant gouvernement wala président de la république nag mën nañu déposer projet de loi mhm. projet de loi d'amnistie bu dee député nag proposition de loi d'amnistie lay doon dans le passé il a eu la loi Ezzan mhm. député Ibrahima Isidore Ezzan bu Kaffrine yàlla na ko yàlla yërëm moom moo ko déposé woon donc loolu proposition de loi la woon mais bii bi par exemple bii nii bii ñu dégg dem ci conseil des ministres c'est un projet de loi parce que ci euh, gouvernement euh, la jógee donc en cela nag euh, il faut que ñu différencier te intérêt bi sax lool la mooy différencier. projet de loi proposition non non amnistie ak grâce. parce que amnistie loi la grâce décret la. amnistie ay fee lay amnistier décret ay nit lay nit lay amnistie yaakaar naa ne loolu dinañ ci dinañ ci gën a gën a xuus encore. Mhm. waaw donc daal loolu la amnistie moom loi la boo xam ne euh, assemblée moo ko voté euh, wuuteeg grâce bi nga xam ne moom président la république mooy toog rek signe signé benn décret. Mhm. ne diw ak diw mais souvent nag day doon ñoo xam ne dañ leen condamné définitivement. la grâce moom c'est souvent des qui ont définitivement condamnés parce que peine peine bi lay maanaam la peine de prison bi lay lay lay lay lay lay génne quoi lay mm-hmm. nit ñi génn dellu seen kër. Euh, kan moo am prérogative vous proposer une loi d'amnistie. donc euh, presque wax naa ko mooy député yi. député ak euh, kii gouvernement. Mm-hmm. gouvernement mën na déposer sur la table de l'Assemblée nationale donc loolu moom. yaakaar naa ne jarul sax ñuy sori. Mm-hmm. loolu moom tey tey teyoo tey. wala démb conseil des ministres nee nañu. le conseil a examiné et adopté un projet de loi d'amnistie oui. donc bu ko euh, adopté nag après da koy yóbbu à l'assemblée waaw assemblée député yi nag ñu am sañ-sañ pour voter ko bu ko voté xayrun mu jàll bu ñu ko voté wul après ñu mu daal di furas. oui dañuy dégg souvent et je pense que wax nga ko léegi mais ñu gën ko faram-fàccee rek du ay nit la ñuy amnistier mais des faits. waaw amnistie moom ay faits lay visé. Mhm. day naan par exemple dañuy jël benn séquence temporelle. ñu ne à partir de bon bi bii nii maa ngi dégg ñuy naan de deux mille vingt et un à deux mille vingt quatre. Mm-hmm. donc li fi jotoon xew yëpp te mu lié ak politique. mu lié ak politique infraction politique donc dañ koy dañ koy effacer des fois mën nañu wax infraction économique des fois mën nañu wax ne l' infraction liée à la crise Casamance à la rébellion Casamance boobu mooy nekkoon euh, projet de loi d' moo nekkoon loi d' amnistie 91. mais bii moom je crois que c' est les faits qui sont à la politique. Mm-hmm. donc yooyu euh, la ñu la ñu kii maintenant. du ñu wax ne nag euh, loolu kiiwul daal du ñu wax ne amnistie nañu maa Demba wala maa Samba mhm. dañuy naan am amnistie nañu fee yi nga xam ne maasam ak maa Demba defoon nañ ko mais duñ duñ tudd sax duñ tudd sax ay tur. Euh, duñ tudd ay tur grâce moom day tudd ay tur day naan diw diw diw diw diw. maanaam fee yi xewoon ci diir bi. waaw ba ci diir bi ba ci diir bi. Mhm. te ñu amoon relation ak lii. ak lii mhm. voilà donc ku ci bokk nag automatique c'est automatique. voilà ku ci bokk nag bon maintenant pour la compréhension des fois il arrive que ñu ne amnistie bi par exemple mhm. ça va bénéficier à Ousmane Sonko. wala ça va bénéficier à ñoom Clédor Sène ak ñoom Assane Diop ñoom ñooy ñi ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci assassinat maître Sèye bi. wala ñu ne ça va bénéficier à ñoom euh, sais pas l'abbé Diamakhoune wala yooyu. Mhm. mais loolu pour compréhension la rek. mais euh, loi d'amnistie moom il me semble sax que loi d'amnistie bu proposition de loi d'amnistie bi door Ezan déposé woon ci euh, assemblée dafa mel ne dañ ci tuddoon sax ay nit. mais foofu loolu noonu bi mu demee assa bi mu demee conseil constitutionnel bi ñu ko jëbalee conseil constitutionnel. Mhm. loolu daf ko daf ko daf ko censurer. parce que dafa ne une loi elle est impersonnelle. Mhm. une loi ne vise day poser ay principe day du du du tudd ay du tudd ay dur quoi. Mhm. waaw comme amnistie service des faits euh, tey diggante 2021 ba 2024 tey euh, comme nga ne du ñu tudd tur mais tey Ousmane Sonko. Mhm. xam nga ci la bokk. tey bu ñu demoon ba ne amnistie euh, voté nañ ko fële ñëpp dañu war a génn ñibbiwaat seen kër est-ce que moom am na droit taxaw ne du ma génn. am droit taxaw ne du ma génn moom parce que loolu moom je crois que boo. boo génn sax dañ amnistie bi. non dañ mën leen bu fekkee ne bu fekkee ne euh, yow li nga def. rapport ak dafa am rapport ak euh, loi d'amnistie bi wala loi d'amnistie bi dafa viser yow yow li nga def ah boobaa tu es obligé de sortir dañ lay dañ lay génne dañ lay génne. Mm. ni la dugalee woon parforce noonu la noonu lañ la fay génne génne la par force mais loolu nag moom. yaakaaruma ne bon loolu ci dinañ ci yàgg te loolu gisaguma ko gisaguma ko nag. d'accord mais Macky il a générale aussi dafa am particularité wala. quand il insiste sur sur ce mot. waaw amnistie moom. général daanaka dafa dafa euh, daanaka l'amnistie moom c'est elle n'est pas particulière elle elle elle est souvent générale amnistie générale sax la ñuy wax. parce que li muy amnistie champ euh, champ d'application bi bi mooy bëri. Mm-hmm. et ak nit ñi muy concerné mooy bëri donc de ce de ce fait on parle de d'amnistie général mm-hmm. de wuuteeg. Euh, grâce bi nga xam ne moom c' est individuel. d' accord parce que grâce moom du ñuy wax grâce générale souvent grâce yi moom c' est tout tout le temps individuel euh, même su fekkee ne dafa concerne mille personnes. Mhm. parce que le président des fois ay veille Korité veille 4 euh, avril. day grâce yi ay nit ñu bëri. Mhm. mais grâce yi ay ay nit lay viser nit. ay nit c' est c' est au cas par cas quoi alors que buñ buñ jëlee amnistie moom. Mhm. du cas par cas day fee fee yi ñu wax noonu. ak séquence temporelle bi. ak euh, kii bi relation relation de connexion bi ñu am ak euh, loi d'amnistie bi. Mhm. ñooñu lay ñooñu ñooñu lay lay ëmb. et donc on dit que euh, amnistie boobu li ñeel wàllu viol ak le cas Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko bokk ci. waaw bon loolu nag man dama koy dama koy dégg mais loolu il faut que ñu xaar ba loi d'amnistie bi dem assemblée. Mm. parce que tant que loi loi d'amnistie bu bu demee assemblée xam day am exposé des motifs. Mm-hmm. Mm-hmm. am kii bi comment dire le euh, article yi ak yooyu. Mm-hmm. boobu lañ xam yan ñan ñan la concerné ak yooyu. mais bëggoon nañ xam aussi euh, ndax euh, c'est possible de revenir sur une loi d'amnistie déjà votée et adoptée parce que nag ci plateau ñu ngi doon ñu ngi wax il faut que justice soit faite ñenn ñi même bu ñu leen seetalee tamit le prochain président bu ñëwee war naa mën a ñëw ngir ñu yoon def liggéeyam ñi joxeñ baaraamu tuuma tey ji yoon seen kaw est-ce qu'il est possible revenir sur une loi déjà votée et adoptée. bon en tout cas il y a un principe de droit pénal qui dit qui qui parle d'application de la loi pénale plus douce. loi plus douce mooy buñ la daanee ci loi bi wala loi bi moo la incriminé je sais bon j'essaie en en wolof a comprendre. Mm-hmm. bi bu fekkee ne euh, ci ginnaaw gi dafa am beneen loi bu ko gën bu ko gën a oyof. waaw nga bénéficier ci. Mm-hmm. donc après du ñu mën a ñëwaat tegaat la loi bi nga xam ne moom moo gën a diis. je xam nga ndax comprendre ngeen ko. oui on a compris c' est waaw c' est la théorie de la loi pénale plus douce. bon mais loolu théorie la mais maintenant euh, li gën a am solo sax mooy nit ki am na bu xasee ba am droit acquis parce que loolu droit acquis lay doon. Mhm. bu fekkee ne bénéficier na benn loi d'amnistie mënoo xëy xëy ne ko non non léegi tu n'as tu n'as plus droit bénéficier de ça. Mhm. ensuite. Euh, au non de la paix social parce que loi d'amnistie fu mu am rek c'est que xel yi dafa jaxasoo comme situation bi ñu dund nii. Mhm. donc bu ñu euh, quand dafa am loo xam ne yanuwul maanaa. Mhm. mënuñu jël euh, loi d'amnistie gracier non amnistie ay faits. Mhm. ay nit bénéficier ci. donc au nom de la concorde au nom de la de la réconciliation nationale beneen nguur ñëw naan day kii loolu moralement sax kii kiiwul parce que koo xam ne dafa dem ba génn prison ensuite nga naan da nga koy dugalaat prison. Mhm. bon amaana du neex euh, du neex ay mbokkam te mën na indiwaat euh, mën na kii euh, xel na mën nañ na andi pëccox voilà mën na na indi mën na indi yooyu. Mhm. d'autant que amnistie moom li muy li muy kii mooy nit ñi di fàtte bon mhm. xaw a fàtte bon donte sax fàtte moom du. du mais monsieur Anne amnistie day ñëw def table rase yu ay fait. mais est ñi nga xamante ñooy famille yi ci loru. état prévoir na dara loo xamante ni mooy seen ndàmpaay wala dara lu demee noonu pour compenser. waaw ñi nga xamante ñoo ci jot a loru. boo boo dégloo boo wala boo liiree démb la communiqué du conseil des ministres sax président euh, président je crois dans sa communication wax na ci dafa wax ñaari kii maanaam koy dans le comment dirais dans le sens du pardon xaw ma lan affaire yooyu. donc dañuy déposer loi d'amnistie mais mm. ensuite am na benn paragraphe boo xam ne qui parle de il demande au gouvernement de voir euh, comment faire pour assister les familles. assister ah, les familles rek mooy mooy mooy mooy peut-être indemniser leen. je sais pas mais indemnité nag moom bu ñuy wax indemnisation souvent c'est sur la base de décision de justice sauf que fii amul. décision y personne qui a été jugé. amul kenn ku ñu jugé donc xam naa ne donc li liy ab rek mooy bon peut-être dañuy xool rek benn montant comme Ablaye Wade euh, président Wade li mu defoon ci bateau le Joola bi. Mhm. xam nga amul décision de justice parce que dafa dafa dafa woo les familles là des victimes. Mhm. ne leen ñaar am soit ngeen déposer plainte. ñu dem procédure dugg ci procédure yi ça peut prendre le temps que ça pourra prendre mën na nekk 30 ans mën na 40 ans wala nag ñu indemniser les les ñu ñu indemniser les victimes millions par personne donc finalement les familles là elles ont accepté en tout cas les familles sénégalaises en France nag ñoom ils ont déposé des plaintes quoi au, niveau pénal mm-hmm. mais au Sénégal y a de plainte au niveau pénal mm-hmm. donc dañoo kii rek après ñu defal leen mais loi donc mën nañ à côté de la loi d'amnistie le gouvernement à la possibilité de déposer aussi une loi bon pour indemnisation nga xam ne boobaa dañ koy dugal dans carrément dans le dans le budget de de quoi. Mhm. d' accord alors euh, je pense que loolu leer na pour ñi nga xam ne dañ doon xalaat ni que bu ñu amnistier aussi le prochain président mun na dikkaat ci loolu donc taxawaay bi ñu ci war a am rek nañ ko ci am benn yoon. yëf yi daal di loolu sax moom daa daanu euh, nu ñu koy waxee encore daalu euh, kii la quoi. kiiw kiiw xuloo waaw ah, c'est-à-dire boo xam ne dem na ba jeex ba ay bi fay ak affaire yu ensuite nga indiwaat ko <laughs> loolu beneen beneen kii lay indi quoi bon maintenant les gens voilà nu euh, ni les les gens avancent quoi. après peut-être aussi gravité crime yi mooy andi loolu parce que nag. dafa mhm. metti fi mu nekk nii ñoo xam ne dañ ci rey seen doom. Mhm. ñeneen ñi euh, di ñu gis benn numéro 9 boo xam ne moom tiire bal donc ko fi andi woon. <laughs> Mhm. après ñu war koo seetal comme ça. dafa xaw a metti aussi peut-être que loolu moo tax ñuy poser yenn question yu yu ni mel. waaw waaw bon c'est c'est vrai bon euh, nit ki nag moom mën na koo tere jooy kii am mais nag des fois des fois aussi l'intérêt supérieur d la nation. prime sur les intérêts individuels. vrai que bon ñu ngi leen di masaw képp koo xam ne nag loolu nga ci mm-hmm. euh, toj sa biir xamalan cambriole nañ la euh, kii nañ toj sa oto sa boutique wala sa affaire yooyu wala sa bërëb liggéeyukaay comme les stations d'essence ak yooyu donc dafa leen di naxari c'est vrai mm-hmm. mais mais au nom de la réconciliation nationale mm-hmm. des fois l'intérêt supérieur la nation day primé ci loolu parce que boo seetee ci euh, Afrique du Sud Afrique du Sud lu ko dal amul lenn lu ko gën a metti mais dafa def table rase. vérité et réconciliation les gens sont venus bon ku nekk wax li nga xam ne moom ma la moom ma la naqari. Hmm. ba xool yi kii giif affaire yooyu donc après. on a fait table rase de ça puis on regarde vers a delluwaat ci ci ci ci le passé Rwanda aussi je crois mm-hmm. ils ont essayé de le faire avec mm-hmm. les Gachacha et autres là mm-hmm. d'accord alors euh, ban danger moo am ci tey euh, amnistie des crimes de sang wala délit délit grave ban danger en tout cas juridiquement. juridiquement amul lenn loo xam ne euh, dàq na amnistier crime de sang des fois da ngay dégg ñu naan non crime de sang duñ ko kii wala viol duñ ko amnistier. Hmm. c'est-à-dire que viol bon dañu naan moralement rek bon koo xam ne dafa violer bon euh, moralement est-ce que la société accepterait que par exemple mu ñu ñu ñu ñu amnistier ko. Hmm. mais loolu on est vraiment sur le champ moral quoi mais juridiquement moom rien ne oppose. Hmm. surtout que l'histoire récente nous a euh, wane waneen ay preuves affaire maître Babacar Seye bi par exemple ñoo xam ne dañoo boom nit te pourtant ils ont eu à bénéficier d'un kii euh, kiiw Casamance yi aussi xam nga y a eu beaucoup de morts bon mais terewul après quand il laa a eu la loi d'amnistie ils en ont bénéficié bu fekkee ne nag da nga bëgg a junj ne bon peut-être est-ce danger que ñi nga xam ne euh, dañu nekkoon ci kaso par exemple te fekk dañoo rayoo dañoo dañ leen comme quoi ne dañoo rey ay nit donc ñooñu bu ñu leen génnee ñu delluwaat société bi est-ce que amul ay risques représailles ay fayantu affaire yooyu donc loolu nag moom da loolu moom mën na euh, xel mën na ko xalaat bon maintenant il appartient à l'État mhm. l'État de veiller à la sécurité de tout et de tous et de Mhm. loolu moom c'est sa prérogative régalienne quoi. en tout cas niñ ci taxawee woon ci juin je me dis que moom la ñu war a taxaw wala taxawaay bu ko ëpp ci lu ni mel ndax luy doy waar la alors euh, euh, monsieur wala Ibrahima. comparé mhm. nañu xëy na ci amnistie. dañuy rester rek ci datu présidentielle bi parce que njiital réew mi euh, ndaje bi mu doon def tour de famille bi amoon foofu ci jam ñaajo je pense que wax na. <laughs> ci date bi sànni xeer wax na ci date bi donc ban marge de manœuvre le conseil constitutionnel. am tey jii ñoom El ñoom El Hadj Diouf daal ci tour de famille bi lañ nekkoon. famille ñoom daal def nañ seen i grand boobu rek di <laughs> expliquer alors ban marge le conseil constitutionnel am ci ci lu bon en tout cas euh, le le conseil dans sa décision du 15 février jeudi 15 février yaakaar naa la woon de. Mhm. Euh, dafa ne de manière implicite nag en fait ko junj quoi que le président moom moo am. sañ sañu fixé date élection présidentielle. te répété na ko. waaw répété na ko et teg ci nag dans les meilleurs délais. dans les meilleurs délais. moo xam ne les meilleurs délais foog nga. indil ñu lan moo ci. loolu loolu moom loolu moom tubaab loolu moom du droit loolu moom ça ça c'est du français loolu wala ko bëggee da ngeen di expliquer benn pro da ngeen di invité benn prof de français Marouba Fall <laughs> wala euh, ay ñoom euh, bon je sais pas ay prof de français bon bëri na fi. Mm-hmm. ñu ñëw expliquer lan euh, lan mooy différence entre bref délai ak meilleur délai. Mm-hmm. meilleur délai daal bon man ci ci sama xel bu gàtt mooy peut-être. li ñuy jàpp ne bon moo gën ah, moo gën voilà ah, daat lii gën je crois que sax est-ce que du maître Doudou Ndoye sax du loolu la wax euh, fële donc euh, en tout cas conseil loolu la ko wax par décret dans les meilleurs délais daf ko ko rappeler rek mm-hmm. mais loolu président xam na ko mm-hmm. maintenant la seule éventualité mm-hmm. benn cas la le conseil constitutionnel am possibilité fixer date mooy par exemple euh, bu ñu xasee ba tabb ñi nga xam ne ñoom ñoo war a dem ci élection am kenn ku ci décédé waaw article 29 là, qui le dit en cas candidat, le dépôt nouvelle candidature possible à tout moment jusqu'à la veille du mhm. Donc, maintenant, déposer. Dans ce cas, les élections sont reportées à une nouvelle date par le conseil constitutionnel donc loolu article vingt neuf moo ko wax. de mais boobu dafa mel ni préciser wuñ ko aussi ay nouvelle date rek la ñu wax waxuñu dans deux mois dans six mois dans trois mois. non non non après euh, parce que après xam nga il faut que ñu peut-être mu xoolaat ensuite avec euh, comme comme conseil constitutionnel la xam nga moom bokkul ci administration. Mhm. donc il faut que mu xool ak le comment dirais je l' euh, administration électorale mooy ñoom DGE. la direction ce que euh, ils ils sont dans ñoom. ci euh, comment dirais ci yan délai lañ mën a organiser élection par exemple loolu loolu loolu moo tax par exemple si cas bi ñu nekk nii. cas bi mënoon na gën a simple si on euh, euh, de vraiment de faire li nga wax ni tour de famille. si on avait convié les les les les les les techniciens. direction générale des élections ñëw candidat les candidats qui ont été retenus là ñëw toog ni conseil constitutionnel toog fële man boobu dialogue moom d'accord naa ci léegi ñu ne leen yéen. Euh, dans quel mesure vous pouvez organiser les élections dans euh, et dans combien de temps ak vous avez besoin de de de comment dirais-je bon de de combien de mois de combien de semaines pour organiser une élection libre transparente démocratique inclusive voilà mm-hmm. comme loolu moo boobu léegi dafa xew mm-hmm. inclusive dafa xew euh, mu moom moo xam naa ne moom moo nar a remplacer résilient résilient résilient xam nga mois 2023 2020 2020 2021 ba 2023 moom résilient rek lañ doon résilience mm-hmm. donc mais léegi inclusive moo ñëw donc euh, transparente démocratique inclusive bu boobaa avis bi ñu bu ñu joxee du doon avis Ibrahima Anne du doon avis Fat Bintou mais avis technicien lay doon c'est un avis technique ñoom ils sont techniques quoi qu'on puisse leur dire nag quoi que les les politiciens di teg seen ndodd ñi fi nekk léegi nii ñi si ëpp ils étaient là sous Abdou Diouf. Mhm. am na bon ñenn ñi des fois ñu de dem retraité wala yooyu mais en tout cas pour euh, peut-être le tiers. Mhm. ils étaient là sous Abdou Diouf ils étaient là sous Abdoulaye Wade ils étaient là sous Macky Sall beneen président bu ñëwee aussi fii la ñu nekk ñoom dëkk defuñu politique. Mhm. ñoom c'est des fonctionnaires de l'administration qui sont rompus à la tâche électorale. Mhm. loolu rek la ñuy def donc ñooñu man je pense que tey jii ñooñu seen kaddu la waroon la waroon gën a déglu. Mhm. mais pas ay politiciens ak xaw lan société civile toog rek. jàpp benn date ne 2 avril 2 2 juin. nañ def 2 juin te ñoom teguñ ko amul fenn fuñ ko teg. Euh, xanaa ci calendrier. Ah. jël calendrier rek xool comme man rek. <laughs> suñu invité bi démb loolu waaw di kii di dimanche. ngeen jël. est-ce que yéen bi ngeen di sakku loolu est-ce que lal ngeen lal ngeen ko ci droit mm-hmm. il me répond en me disant que meilleurs juristes yi ñoom ñoo ñu encadré donc lépp lu ñu fa jël comme proposition mm. euh, xool nañu ba mu méngoo ak constitution méngoo it ak li nga xam ne mooy code électoral quoi mm. mais ak loo nekk juriste même boo mësul jàng droit boo mm-hmm. ne boo déggee ni ah euh, la durée du euh, du mandat du président kat mënul dépa dépasser cinq ans mm-hmm. ñu yóbbu ko ba le 2 juin da ngay naan automatiquement kon jalgati nañu yoon <laughs> dégg ñu ne la président amul droit ñu prolonger mandaam ñu ne moom mooy assurer euh, intérim bi da ngay jàpp ne ba boo jàngul droit que ne jalgati nañu yoon ndax yokk nañ bu dee ñaari fan ak leneen ak leneen au fait loolu sax dinañ ci ñëw mais <laughs> tey ji conseil euh, xoxaan ci ndaje ci tour euh, de famille bi on a entendu le président dire que date bi nee na man date bi man mënoon naa toog sama néeg jël sama décret abrogé ko jox leen date nee na ku mu neex ak ku mu neexul yëpp da nga ciy soumettre donc ça veut dire que euh, bu joxee date même le conseil constitutionnel il n'aura pas son mot à dire c'est lui qui a dernier moom le président Sall euh, qu'est-ce qu'il veut dire par là est-ce que tamit noonu la war a demee. non euh, am na foo xam ne président il a parfaitement raison parce que conseil rappelé na ko def ko ne euh, fixer la fixation de la date de la présidentielle c'est de son ressort exclusif yow yaa war a jël date. maintenant ne ko nag dans les meilleurs délais. bon maintenant am na ay candidats yoo xam ne dañu saisir euh, dañu saisir euh, dañu saisir conseil constitutionnel pour faire constater la carence du président de parce que moom dafa waxoon ne euh, au de la décision du conseil constitutionnel dafa ne. Mhm. il va exécuter donc loolu lañ doon xaar ci moom. Mhm. bu tëju woon sax jël date aussi dañuy xam ne rek tëju na jël date mais. ce serait conforme à la constitution. Mhm. mais actuellement nii ci cest ci fi ñu nar a dem nii. mooy que le président de la République au lieu de prendre un décret. Mhm. non il a fait il a fait convoquer un dialogue. Mhm. am ñu fa dem am ñu fa demul. Mhm. léegi ñu fa dem proposer benn proposer ko benn euh, benn date. le 2 juin nee na il va recevoir le rapport le euh, lundi. lundi 4 mars. te bu ko recevoir loolu yëpp lay boole jox ko conseil constitutionnel. maintenant le conseil constitutionnel euh, damay li may ragal mooy mu rappel ko ne. actuellement nii il moom le conseil il n'est pas dans les mën a jox rek mooy avis. Mhm. maintenant bu fekkee ne avis boobu moom arrangé na la président donc euh, loolu loolu peut-être loolu mooy li gën su fekkee ne date boobu arrangé wul président. parce que man euh, bi may ñëw sax maa ngi dégg ba je crois que ñoo ko bind. Mhm. que ne président. dafa xaw a wu sax contre le conseil constitutionnel. Mm-hmm. donc loolu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu moyul nag foofu la ñu foofu foofu la ñu nar jëm. Mm-hmm. donc dañ koy dañ koy proposé wala ñu ne ko date bi baaxul wala yooyu après moom mu jàpp ne date boobu mooy kii bi parce que c' est la date qui est mm-hmm. indi benn benn friction. entre euh, kii. entre conseil conseil ak moom ak le président de la république. donc loolu finalement dañu dugg ci li ma doon wax démb rek ci émission keppaar gi. mooy que bi ñuy wax crise quand le président et le PDS parlait de crise boobu y avait pas de crise mais là on fonce droit vers la crise mm. parce que bu conseil conseil la bu ñu demee ba ñoom ak euh, euh, président de la République déggoowuñu mm-hmm. ci ay ci ci kaddu rek boobaa crise boobu moom boobaa crise lay doon mm. ce sera une crise entre les institutions alors que euh, te te boobu problème bi mooy mooy nekk le conseil constitutionnel qui était chargé d'arbitrer les crises quand il y a bu amee problème entre le président de la République et l'Assemblée mm-hmm. wala le gouvernement et le judiciaire conseil constitutionnel boobu booba léegi moom mooy bokkaat ci crise bi booba kan mooy arbitré. Mhm. parce que la la n'a pas prévu que cour suprême mooy arbitré. Mhm. pré amul lenn lu mu prévoir on est dans boo xam ne yu ci bëri constitution bi prévoir ko. Mhm. donc xam naa ne moom bu ñu bu ñu fiy génnee le pro le premier chantier du prochain président moom. ce sera vraiment tëggaat constitution bi. waaw lépp li nga xam ne moom ay kii la yoo xam ne. dañ ko waaw code électoral bi bon la la la constitution ak yëpp. parce que am na am na fii y a beaucoup de cas yoo xam ne qui sont qui ne sont pas qui n'étaient pas prévus. en tout cas loolu moom bokk na ci bilan bu ñu ko war a remercier ne serait-ce que pour ça. Mhm. loo fi wax rek am na jurisprudence boo xamante ni Sénégal le prochain président war na ko lijjante. donc euh, mais au-delà du 2 avril est-ce que le président Macky Sall peut être considéré comme un président toujours légitime. nga xam nga foofu nag moom yaa dafay am y a différence entre légalité ak légitimité. Mhm. mais mm -hmm. on peut considérer qu'il est parce que le conseil constitutionnel peut toujours trouver des ressorts dans la constitution wala mën nañu xool ay am nu ñu interpréter constitution bi ba nga xam ne dañuy naan le président là le président de la République qui est là il peut s'installer il mën na fa nekk ba keroog ñuy élire beneen président. Mhm. donc loolu légalité lay doon. mais légitimité moom. Oui. légitimité mhm. dans un système démocratique. Mhm. élection rek moo koy conférer. te élection bi le le mandat du président de la République bi nga xam ne il l'a acquis sur euh, la base d'une élection. d'un scrutin. donc euh, mi ngi courir premier bi de 2012 à 2019 muy le premier mandat de sept ans mhm. quand il a été réélu beneen bi mi ngi courir jusqu'au 2 avril 2024 bu foofu nag moom bu jeexee mooy jeex na maintenant su fekkee ne nag organiser euh, kii nañu on a trouvé dans le kii la ne serait-ce que pour euh, xaw a indi benn semblant de stabilité ba nga xam ne keneen ki koy wutu ñëw wala yooyu même bu dee 2 mois 6 mois 4 mois wala 1 an hmm? loi lan la ci wax non loi loi li mu prévoir mooy cas yi nga xam ne euh, président bi dafa jeexal loolu mooy situation normale bi. Mhm. président bi dafa jeexal am am euh, mu euh, am xam nga des fois dañu am benn période boo xam ne dañu am deux présidents le président nouvellement élu. et le président qui est en exercice le président sortant. Mhm. donc mais bu bii ba nekk ci cas de figure boobu. Mhm. on va être dans le cas de figure d'un président sortant mais qui n'a pas encore trouvé un successeur. te moom nee na di démissionner loolu la wax. maintenant s'il démissionné nag moom bu démissionné woon. loolu day faciliter sax la tâche au conseil constitutionnel. Mhm. bu boobaa euh, le président de la de l' assemblée nationale da koy saisir moom la yoon may mu saisir le euh, le président du conseil constitutionnel wala le conseil constitutionnel. Mhm. saisir ko pour constater la vacance du pouvoir bu constater la vacance du pouvoir après moom mu installé ko. moom le président de l' assemblée nationale mu assurer l' intérim. Mhm. pendant euh, trois mois euh, pendant pendant Deux. trois mois. deux à trois mois mhm. donc le temps que muy organiser élection mhm. c' est juste le temps de lui permettre mu organiser élection boobaa situation boobu sax te fii fii ñu nekk nii situation situation boobu sax moo moo moo moo yaakaar naa moo moo mën a génne Sénégal ci kii mhm. mais su fekkee ne euh, les gens là d' accord uñ ci loolu ba moom président mu mer le 2 avril comme il l'a il l'avait ci kii bi euh, waxoon na le 2 avril moom à la kulli haal moom day quitté mais maintenant quand il mais vide institutionnel lay doon. Mm-hmm. loolu day doon une situation inédite dans notre pays. Mm-hmm. kii euh, en Belgique. amoon lu mës a am ci lu mës a am précédent et puis c'est un précédent dangereux parce que nit ñi mën nañ dugg ci ay euh, situation boobu prox ndool boobu les forces forces yi ñuy naan les forces obscures forces organisées wala yooyu mën nañ ci profiter jël jël jël kii mm. maintenant euh, foofu la institution solide amee amee amee amee amee kii institution solide mm-hmm. je disais que Belgique am na benn moment boo xam ne il n'avait pas amuñu woon premier ministre amuñu woon gouvernement presque pendant pendant six mois. Hmm. mu doon genre pilotage à hmm. mais le pays continue à fonctionner. bon peut-être les secteurs généraux des ministères je sais plus wala les wala les ministres bon on leur demande d'expédier les affaires courantes. Hmm. mais y a pas de premier ministre xam nga Belgique c'est un kii la genre royaume la. royaume la donc le premier ministre moom moo yore. moom moo yore le le pouvoir quoi. Mm-hmm. comme Sénégal ni mu meloon au début des indépendances ak Mamadou Dia. Mm-hmm. foofu le premier ministre moo yor la réalité du pouvoir. Mm-hmm. donc euh, le roi moom day kii euh, symbolique la rek. mais n'empêche que ils n'ont pas connu de crise ils n'ont en fait le le, fonctionnement euh, régulier des institutions a continué à se faire de la manière la plus normale possible. mais Sénégal suñu régime c'est un régime présidentiel. c'est comme yenn famille yi le quand le papa n'est pas là c'est le donc ñun tamit est-ce que on peut se payer le am benn kii boo xam ne on n'aura pas de président je crois pas que le Sénégal suñu institution yi yàgg na ci euh, am na solidité boobu. en tout cas est-ce que euh, lui aussi il a ce droit toog jàkkaarloog sa askanu lëmb euh, naan leen doyal naa sëkk doyal naa sëkk te yow bi ñuy bi ñuy laat suñu ay carte carte moom danga ñu ko doon defee nii fi sabili laa ñu jox la ko nga war ñoo delloowaat suñu nguur normalement naan ñu doyal naa sëkk. waaw ah, ah Euh, moom moo xam lan lan lay qu'est-ce qu'il pense xaw ma lan qu'est-ce qu'il euh, qu'est-ce qu'il a derrière voilà qu'est-ce entend par par doyal naa sëkk mais je crois que nit après ñaan nañ ko njëkk te pas Assane sax li mu waxoon dem jëm dem ci émission bi mooy vraiment nañ ko ñaan saraxu ko lépp lu ñu mën a def daal nañ ko kii rek bon ba nga xam ne transition boobu dina ko mën a kii au vraiment bénéfice du du Sénégal et du peuple Sénégal parce que quand même on ne mérite pas. Ah. le Sénégal ka euh, xaw ma ñaata année après les indépendances cinquante quatre ans xaw ma. Hmm. Euh, ne mérite pas ça quoi on va fêter un 4 avril boo xam ne finalement doo xam sax la. Hmm. doy na waar en tout cas mm-hmm. euh, on le mérite en tout cas pour la première fois comme li ñuy wax moo boobu moom miin nañ ko ak moom te mm-hmm. njekk ki aussi jaruñu koy ñaan nax dañ ko koo joxoon voté ko ko. bàyyi rek ñu ñaan njëkk bu eh, ñu ko man amali ah, ñaan man de man man man moom bokkoon naa ci ñi ko voté te du ko ñaan njëkk. ñaan njëkk rek mu dem <laughs> ñaan ma ko njëkk mu dem ak jàmm na doxal yoon rek réew mi <laughs> nekk ci yoon en tout cas euh, mu nekkoon kàddu yu am solo euh, la star du jeudi dafa jeex ah? Ah. ah waaye dafa mel ni de. dafa jeex doyeloo <laughs> na ay des na ay. ñu bàyyi la nga ah, na waaw waaw. qu'est-ce que la loi prévoit euh, dans ce cas de figure. dans dafa ne président de la République reste au l'installation de son successeur. mais bu ñuy naan successeur mooy dafa am élection s'il n'y a pas doo am élu du bu amul élu doo am successeur. donc dañuy nekk ci benn situation boo xam ne. impasse lay doon léegi nag la commission numéro 2 du du dialogue mhm. dafa proposer mhm. à ce que euh, moom le président Macky Sall qui reste au pouvoir pendant deux mois mhm. le temps que euh, son successeur la soit élu parce que moom dafa waxoon ne wax na ko ci keroog entretien bi mu am nag euh, la presse locale. donc waxoon na ko waxoon na ne moom le deux moom day il il il il quitte le pouvoir. il quitte la tête de l'État passation de service bi rek la quoi. waaw deux mois yi waaw pour pour euh, juste qu'il euh, qu'il qu'il qu'il assure waaw mm-hmm. Mm-hmm. assure l'intérim mm-hmm. ensuite dañuy wax ne le président le président de l'assemblée moom mooy euh, remplacer effectivement président de l'assemblée moom moo war a remplacer mais dans les conditions yi nga xam ne dafa am empêchement soit le président il décède on ne lui souhaite pas mais ñaan yàlla mu gudd gudd fan wér bon ba ba mu joxe lenge yi dans euh, ci moom ni ni ñu ko ko joxee woon. Mm-hmm. Euh, donc le président de nationale day assurer intérim mais intérim bu gàtt la. Mm-hmm. trois euh, deux à trois mois le temps juste le temps de de de d' organiser te loolu article article 39 constitution moo ko fixé dafa ne en cas de démission. Mm-hmm. d' empêchement ou de décès. le président de par le président de nationale. Mm. donc loolu moom. maintenant su fekkee ne nag. on n'est pas dans ces dans ces cas euh, euh dans, dans les cas énumérés. Mm-hmm. la suppléance est assurée par l'un des vice-présidents. de l'Assemblée nationale dans l'ordre de préséance. Mm. donc su fekkee ne même le président le président de l'Assemblée il n'est pas dans les conditions de succéder. dañu xool léegi nag liste des vice-présidents yi. Mm. après ñu xool kan moo ko ci. te boobu nekk gu ñu ci boobu cas de figure parce que. Macky Sall il a été élu en 2019 ré euh, non en 2012 réélu en 2019 et son mandat prend Euh, le le le 2 avril. donc waxoon na ne ci date boobu il quitte le pouvoir. bon oui. maintenant li des rek mooy est ñun ñëpp dañuy dem place de l' place de l' indépendance wala place de ñaan ko njëkk <laughs> pour mu toog assurer intérim bi. <laughs> wala wala day démissionner parce que loolu rek moo fi am. soit mu mu mu mu mu toog assurer intérim bi wala mu démissionner parce que bu démissionner moom. laa loolu ça c' moom qui facilite travail à tout le monde. Hmm. y compris au conseil parce que conseil conseil si boppam dafa actuellement a Euh, disons bu fekkee dañu yegg ba foofu mu ne moom assuré wul intérim nag croiser les bras. non moom la moom moom non moom moom laa la wax ni parce que booba vide vide lay doon vide institutionnel. day am genre kaw sax lay doon kaw institutionnel loo xam ne la mosuñu ko Sénégal mosuñu ko mosuñu ko mosuñu ko mosuñu ko mosu ko jànkonteel quoi ko dund Ibrahima ah, lu am solo lay wax nga nekk ci gannaaw rek du ñu tàcc duñu ne heure bi jeex na <laughs> waa petit déj eh. ah daañu boo paree kii moom foog ñu taaj ko. baale ñu de baale ñu baale ñu baale li tolluwaay tolluwaay réew mi la ñuy wax ko mm-hmm, mm-hmm. waaw ñun. rus naa taa pend eh. am na lu wax <laughs>